ça va La rubrique. Ah, ouais, euh, alors aujourd'hui, on va parler de la prostate. Donc, prostate, c'est une glande euh, du système génital masculin. Mhm. voilà donc bi euh, situé entre pubis bi rectum mhm. donc bu ñu prostate sax moy fi nga xamantene mom distribuer sperme bi ci góor ñi. absolument voilà donc muy. Euh, ça la, la taille du noix voilà du noix taille noix la am euh, voilà la machine à procréer comme tu dis voilà habituellement nag noix. noix ben, d'acajou d'acajou, on peut dire acajou waouh waouh waouh une petite noix taille une petite noix la daal waouh. genre voilà xam nga saalu c'est non lay bindoo. voilà donc tay euh, prostate la ñuy waxtaanee nga xamante euh, de plus en plus ñu ngi euh, gis que nit ñi ñu ngi am ay problèmes yu yu ay problèmes prostate donc en général muy nekk inflammation de la prostate wala mu nekk cancer de la prostate. Oh. dépend na ci stade bi ñu toll. alors de comme ni ma ko waxee rek de plus en plus dañuy dañ constaté constater ci benn âge bi à un certain âge góor ñi di am muy euh, ay complications yoo xamante ne habituellement boo ko amee comme maanaam mu nekk infection wala mu toll benn stade de cancer par exemple euh, maanaam euh, utilité bi nga xamante ne moom la waroon am dootu ko amati parce que tout simplement dootul fonctionner comme comme il se doit. absolument alors loolu nak bu démé ba am la plupart du temps dañuy comme ni ko Seydina di waxé góor ñi dañuy wacc lal. en fait dañuy un problème d'érection dañuy un problème d'érection euh, euh, d'éjaculation etc. cetera. ah da ngay lal. voilà da ngay wàcc <laughs> eh da fay toj affaire bi yow noppi la ah. Le ma wàcc lal duñ ko toj. la may wàcc lal da fam différentes formes de wacc lal. mais prostate oh. bu la ci wacc lal fekkee rek la santé yalla bu la ci cancer fekkul moy bah voilà voilà c'est ça moom moy comme li ma doon wax rek moy soit day nek inflammation donc euh, après da lay indil dysfonctionnement ça va c'est traitable parce que euh, c'est un traitement qui va se faire ñu lay defal suivi jox permettre à ce que reprendra ce système euh, de fonctionnement normal. Rassure-nous, ça veut dire que quand il y a dysfonctionnement, ça veut dire que c'est juste ben, problème régler. voilà alors ñu ci bëri euh, dañuy am genre problème yooyu noonu dañuy yaakaar ne peut-être dañ leen liggéey dañ leen lii dañ leen laa fekk ne problème prostate lañu am ok voilà donc pour ñu wokk nit ñi tamit xam ko naka lañ koy wooyee naka euh, naka suñu la kiiwee. takk xala xala xala xala voilà ñu bëri dañuy naan dañ leen takk xala fii ñi ñu naan dañ leen def lii ñi naan seen jabar yi leen liggéey rang ngerang ak ay détails yu du jeex. Mhm. bon la plupart habituellement problème prostate la am. yéen ñii yéen a koy def. ah waaw ba tey mën naa ne nag mën naa ne parce que comme ci Afrique lañ nekk nan lañ koy defee non man daal je me dis ne loolu mën naa nekk yéen kay yéen ngeen di bloqué feneen yàlla bu ma ko xam si sama ah yàlla buñ ko xam <laughs> moos yàlla buñ ko xam moos takk <laughs> xale ah, ah, la rek wala pour nit jox la plaisir bi nga bëgg forcément y a pas besoin ah, moom buñ ko def ngunu ginaar moo koy dindi dëgg la xaw ma ngunu ginaar moo koy dindi takk yàmba bi xam-xam de non, toutes mais les parce façons. Que là, de toutes les façons, euh, bon, ça c'est toujours dans le cadre mystique et dans le cadre bien voilà, irrationnel. Là on parle de médecine. Voilà, là quand on parle de médecine, il y a <laughs> beaucoup de gens qui ont un problème au prostate. Bafa, ils ont du mal à faire des enfants. Oh. Euh, ils se posent souvent la question. Nous avons fait des fragilité si c'est euh, sperme bi, madame sperme bi du am euh, Non non non, en fait, euh, du, du, du, non seulement du far, bah secondo euh, kii bi euh, sperme bi du dëgg du du xaw ma naka laa ko mën a expliquer. du bëri ay ferñeent yi nga xamante ne voilà dina mën a voilà dina mën a tax mu mun a def doom voilà. donc la plupart du temps dafay am genre cas yooyu donc boo seetloo sax genre cas yooyu bu amee dañuy def traitement bu intense ku góor ki euh, defal ko traitement et tout mais loolu pour ñu xam ko il faut nga dem seeti médecin ñu xoolal la ko defal le constat xool ndax prostate la wala leneen ak leneen moo ci rax mais la plupart des gens bu ñu amee genre problème yooyu dañuy yaakaar dañ leen a takkal lii dañ leen takkal alors que prostate mooy def loolu boo amee problème prostate habituellement tu as du mal à éjaculer euh, éjaculation précoce ngay def wala tu tu as du mal du coup da nga dul mën sax euh, sentir sa bopp voilà da ngay gaaw a daanu ba pare sa euh, sperme bi du dëgër donc doo mën a jur doom parce que da ngay am inflammation boo xam ne dafay am ci bi prostate bi inflammation boobu foog ñu traité ko da ngay saw rek voilà da ngay traité inflammation bi ça te fait des maux de ventre am na ci ñoo xam ne dañuy def ay biir yu intense am na ñoo xam ne problème mu ndigg la leen di def donc y a tous ces aspects là yoo xam ne da nga koy retrouver ci prostate bi ak saw bu bëri bi saw bu bëri bi ak yooyu ñi ko am sax la plupart avant ñu leen di defal yenn intervention wala loolu dañ leen di mettre sous sonde voilà parce que pour ñu mën di téye seen saw yi ak yooyu noonu voilà donc loolu en général lay nekkee léegi nag bu demee nag ba yegg tournure cancer nak loolu c'est autre chose ah c'est parce que en fait l'infection a été négligée pendant un bon bout de temps mu dem ba mujj def tournure cancer ba yeggee foofu nag bon après c'est des chimiothérapies c'est des hormonothérapies c'est des voilà c'est des chirurgies des opérations et cetera yoo xam te ne la ciy fekk donc moo waral habituellement góor ñi bu ñu commencé di am régulièrement ay méttitu bas ventre yu intense wala di saw muy métti wala ñuy saw saw yu bëri wala bu ñu buggee bokk yëg seen bopp du ñu yëg seen bopp wala ñu am jabar pendant des années ils n'arrivent pas à faire des enfants parce que Sénégal fii loolu moo ci dommage en fait habituellement bu jigéen jurul doom rek bu jigéen jurul grossesse rek automatiquement ko jigéen ki lañ koy alors que parfois du sax ku jigéen ki ci ku góor ki lay nekk alors les rapports euh, multipartenaires yi daf koy indi parce que la plupart du temps ces genres de rapports là lay indi ay IST des maladies sexuellement transmissibles mais s'ils ne sont pas bien traités finalement vous a des problèmes problème parce que tout simplement Sénégal fille comme le may on a nos mentalités on a nos réalités les gens pensent que voilà euh, un homme ne doit pas tomber malade dans ce sens-là multirelationnel moi par exemple un homme qui couche avec beaucoup de femmes ou bien un homme qui partout. Non, un homme qui couche avec, plusieurs, femmes. en même temps, C'est-à-dire plusieurs partenaires différents. C'est comme une femme, on le dit, comme une femme qui a plusieurs partenaires sexuels. Okay. Hommes, habituellement, est, est plus euh, à avoir des, des problèmes, IST. voilà, des IST. <laughs> Donc c'est pareil pour les hommes. De nos jours, man dafa ben affaire bo xamné dama ko remarquer. Comme rek jigen yi nga xamantene dañ nan ku ci am dom yu bari, do am yenn cancer yi. Mhm. dañ naan aussi ñi nga xamantene buñu amé soxna yu bëri ñom ñoy am li nga xamantene mom moy prostate mais dama def ben remarque la plupart à partir de 50 ans ñi ñu am euh, soxna yu bari que ñu am soxna prostate bi dafa mhm. Mhm. je sais pas pourquoi xamuma ndax di bu je sais pas aussi ndax ah, normal après âge bobu je me euh, pose toujours la question à savoir parce que quand prostate li ma koy gis dafa bëri. Mhm. tout le temps damay xool ci net bi dañuy wax prostate prostate léegi sax da ngay gis ay xale yoo xam ne dañuy am prostate. Mhm. ce qui est anormal. mais tu sais en fait en fait tu sais d'habitude sax problème médical euh, am na ay cas yoo xamante ne ça peut être des cas de problème hormonal yoo xamante voilà exceptionnellement c'est des c'est des gens qui ont des problèmes hormonaux yoo xamante ça peut être dû même à la naissance par une infection qu'ils ont qu'ils ont copté à la naissance infection bi teelul feeñ mu dem ba topp leen ba ñu dem ba nek mak mu dog réagir lu yëpp parce que nit fu nek ak sa organisme ni muy doxee amna na ñoo xam c'est voilà par rapport à des voilà à des à des trucs qu'ils ont eu à faire lors de leur jeunesse je pense que négligence la voilà négligence bo xamante ne par exemple mais limay wax rek xam nga tay aujourd'hui de plus en plus plus on avance plus les hommes ils comprennent qu'ils doivent aller voir un gynéco plus on avance plus les hommes ils commencent à comprendre qu'ils sont appelés à avoir des infections mais avant quand on parlait d'infection les ne da infection automatiquement braqué ou non. pour mom góor warul am infection alors que góor day am infection infection góor ça mo gëna metti traité sax que infection digène ah parce que beaucoup góor mën na yor infection pendant des années du réaction bi muy am bu gaaw bi ci jigéen bi du ko am bu gaaw bi ci ku góor ki donc mën na ko dundee te du xam ne ni que moom la am après ce qui se passe mooy que il va aller le distribuer un peu partout et, puis, et plus tu distribues plus tu en reçois parce que yéen aussi euh, ce qui facilite effectivement le traitement c'est que euh, euh, les ovules yéen directement en fait on voilà, traite la maladie nous, de manière nous, euh, voilà de manière directe ba pare ñun euh, suñu suñu suñu vagin dafay auto produire bopam day auto traité bopam uh-huh, uh-huh. donc loolu moy chance bi ñu am moy bo commencé def ben traitement mom su bopam day jël day adapter wu ci traitement bobu def auto traitement te góor mom c'est irréversible te góor ñi c'est autre chose voilà ba pare tamit lan moy ñu gëna may chance ñun amuñu yenn complexe da ngay gis ben jigen bo xamante day dem ci gynéco ku góor mu koy defal traitement di ko suivre mm-hmm. mais fi góor bo fi ne demal ci ku jigen mu defal la traitement mu ray boppam ne da nga koy yeb wala nga ne bi man mais <laughs> loolu lan nan ngay mën a wéree bu fekkee ne faju rek moo la tax a jug demul jarul ay góor mm-hmm. jarul ay jigéen mm-hmm. mais bu góor bu la jigéen di xool yàlla xam na ne bu lay faj du la amul sax taawu naan da lay gis wala da lay la ñuy gis par jour bañ nañ ko bëgg ñoom léegi bu ñu dootuñ la <laughs> touché benn appareil la ñu am buñ ko laalee day génne automatiquement ci ordinateur bi lan moo la dal mm-hmm. même clients dugal ko fépp fu ñu touché dinañ xam ne lii moo falal parce que dañ ko mm. xam par mm. expérience mm. dañ ko jàng mais yenn xalaat yi la ñu war a bàyyi dem na bu ma demee am na ñoo xamante ne carrément dañ naan seen jabar yi bul dem ci gynéco man personnellement je préfère sama jabar man je préfère man dem ci góor man mu faj ma ko jigéen parce que jigéen ñi am nañ ay we nerveuse nañu ñu ci ëpp ah, góor si foo rek man li may wax dama ci xam dara mhm. moo tax ma koy wax mhm. du ma toog naan dem naa hôpital bi lii wala lii mais c'est dama ko xam li may wax wala nga dem ci ko góor de góor li xolu yërmande bi mu am bi nekk ci góor nekkul ci jigéen ok jigéen lu la ëppalee dala koy wan mhm. góor ñi nag loolu lijjantiwuñ ko dañuy ñëw def seen liggéey dem seen yoon ku ci feebar bul taamu góor moo lay faj wala jigéen. dëgg Yo yooyu amul demal ki la mën a faj demal ki la mën a faj mu faj la. ki la jëkk voilà ki la jëkk mën voilà donc moi je pense que comme li mu wax léegi nii rek euh, il faut que les gens changent de mentalité ils commencent beaucoup à aller vers vers les médecins. Mm-hmm. parce que tey euh, comme on dit euh, de plus en plus jeunes yi dañuy teel a takk jabar. non seulement da ngay teel a takk jabar mais balaa ngay takk jabar rek am nga benn vue sexuelle bu intense boo xam ne amoon nga ko avant ngay takk. et pas forcément intense hein. bah oui mais de plus en plus hein avec la nouvelle ah, génération c'est devenu maintenant un jeu. Ah, le sexe est devenu un jeu ce n'est plus maintenant un sujet tabou je bah ne sais pas mais les très tôt à 14 ans 15 ans góor commence une vie sexuelle bu mhm. intense dañ am ak morom yi ni bo non non non c'est juste pour expliquer que ne imagine toi que tu as bah une vie sexuelle à partir de 14 ans bah mais à 30 ans tu auras tellement vécu que tu auras tellement fait de choses tu auras eu tellement de partenaires que tu boo takkee jabar amna lu bëri lo xam ne mën na la fekk ci bir sëy bi parce que voilà nit nit kese la organisme organisme kese la am na loo ne boo ko joxulee maanaam lim la laaj boo ko joxulee bo ci boolewul hygiène de vie bu baax mm-hmm. fay réagir moy tax ak li ñu waxoon bële pas naan effectivement sore dee jabar wala ngay euh, voilà il faut aller parfois nga dem bilan xool ndax tout va bien pour ne pas après mom ay complications ci bir sëy bi tay avant da nga daan dégg prostate à partir de comme limo wax ay 50 ans moy ay pas yoo ñoo xam xamante ne commencé nañ magal ah, jot nañ dund li ñu waroon dund yëpp seen jeunesse takk nañ seen jabar am nañ seen i njaboot seen jabar yi sax ménopause nañ mhm. donc ñooñ nga daan dégg ñu ni wax waxu prostate mais léegi à 30 ans tu entends de la prostate à 35 ans des jeunes qui ont de la prostate c'est incroyable ça veut dire que voilà euh, tey jii nii egg nañ niveau boo xamante ne euh, les choses évoluent très vite alors pour maintenant éviter d'avoir des problèmes dans ce sens wala éviter muy yegg di def ay tournures yu grave tey ku ci nekk koo xamante ne tu sens parfois que ne tu as des maux de ventre yu intense di gis ne da ngay saw lu bëri wala bokk nga bëgg nga bëgg yëg sa bopp mënuloo yëg sa bopp wala boo yëgee sa tamit deux secondes ya dawal dem médecin dama généraliste nga sa problème recommander vers un gynécologue wala benn spécialiste boo xamante ne voilà mhm. un sexologue boo xamante ne mun moom dina la mën a xool ñu defal la peut-être mhm. ay euh, nu mu tuddati échographie defal la ay traitement defal la yëpp xool exactement ban stade la toll xool nu ñu koy mën a fajee mu gën a pratique. et puis est-ce que tu sais une chose tout le monde pense que échographie jigéen rek dañ ko war a def non non non c'est non non non échodoppler voilà échographie dafa am ci biir échographie am na ci ci sexe ah ah ah am na ci partie bulbaire am na ci cœur am na ci cœur am na lépp donc c'est pas forcément jigéen rek la ñuy defal échographie mhm. wala pour xam ndax am doom bi fan la toll Mhm, mhm. non non non il faut que les gens enlèvent cette mentalité là de leur tête un médecin il est spécialisé dans toute forme de maladie il y a des gens qui sont spécialisés sur des maladies spécifiques que ce soit pour homme que ce soit pour femme mhm. l'essentiel mooy na maladie bi maladie bi ñu ko détecter a nan donc vraiment euh, il faut pas négliger cette maladie parce que négliger ko égal à bu stade ah, tu risques de ne plus avoir de vie sexuelle de prendre ta vie sexuelle et la mettre de côté

ku ci góor bu ci xam ne ñaa ngi commencé di am genre problème yu mel noonu surtout que méttitu góor méttitu biir ci góor déjà baaxul ñun ñëpp xam nañ ko quand tu commences à avoir des maux de ventre fréquents bas ventre fréquent rek inquiété wul commencé di inquiété wu parce que en général ça veut dire qu'il y a quelque chose qui qui ne va pas du tout ci biir bi mhm. demal xool yi ñu xool lan moo la dal ñu defal la traitement bi war pour éviter que mu yegg tournure cancer parce que cancer ñëpp xam nañ ne dafa métti ah. cancer moom boo ko xasee ba am chimiothérapie dina la ci fekk chimiothérapie xam nañ li muy def ci nit mhm. sans compter chimio mun nga jóge ci chimiothérapie bi wér sax te après dootoo amati vie sexuelle bu ah, normal parce que tellement que dafay affecté sa yaram ba yow dootoo amati kattanu def quoi que ce soit lépp lu chimique li ñu dugal sa yaram mais nag voilà nga jóge ci loolu dinañ defal ay radiothérapie radiothérapie dafa métti mooy tout le mhm. temps ci sous euh, sous truc euh, euh, hormonothérapie yi nga xamante ne dañ lay jam ay hormones de partout bah da ngay dem ba yow mujj bi sax comme je dis rek ta vie devient vraiment un enfer un enfer bah alors balaa ñuy yegg ci stade boobu noonu na nit ñi moytu te comme on dit

te yow loolu mënuloo ko xam tant que nit ki waxu la ko te nit ki du la ko wax. bu naa rajouté benn affaire ngir yàlla su fekkee da ngeen am ay partenaires multiples mënu leen si dara parce que da ngeen topp seen bakkan sol leen capote pour protéger votre femme. merci beaucoup c'est un minimum. justement ça mais pas pour protéger votre femme nga. mais sa protéger sa bopp sa xam nga soo protéger sa femme c'est-à-dire que xam nga da ngay daf lay jural doom man en fait cest que il faut se protéger des mais c'est évident parce que taï euh, dans une vie de couple mhm. man man toujours déplorer parce que da ngay gis ko jabaram mais elle a des infections oh On en plus finir

je sais pas débrouillez-vous pour aller faire des analyses ou je ne sais quoi quoi quoi Tay moo tay tey li ñu doon wax passé des ku ciy ne dugg ci sëy bi demal sa ah, bop parce que tay délicat métti na compliqué na am na fi ñoo xam ne dañuy dugg ci biir sëy après problème yooyu moo leen di génnee ci sëy bi te nit ñi duñ ko xam da ngay jékki-jékki dégg diw mënul sëy nangul sëy dafa bëgg lu yomb dafa fekk ne problème bu toll noonoo ngi ci biir te mënuñu ko wax parce que am na loo xam ne du lépp la ñuy wax ci biir sëy am benn xam nga man je vais revenir à li nga wax da nga ne xale boo xam ne ndaw la euh, jëkkëram rek la xam mhm. mais kooku jëkkëram dafa doon voyager en Afrique centrale ak yooyu je je je ne je ne juge personne hein. mhm. mais instant boobu dafa amoon guerre bi ak yooyu mais jëkkëram euh, daf ko wàll sida xoolal loolu. dafa doy waar. xoolal loolu ci benn témoignage la boo xam ni dama oh, ko déglu woon ci rajo RFM. femme bi elle est obligée mu toog ci sëy boobu. par la force par la force fu mu jëm. mais après le mari est décédé et elle elle a des problèmes mais terribles parce que gars yi dañ ko xam léegi nag suñ ko xamee dañ stigmatiser. Eh ben oui. sa doom yi du ñu foog doomu koñ bi waa koñ bi. sa jabar c'est ça et c'est ça qui est dommage en Afrique. c'est que on juge les gens. à la place de les aider à trouver une solution on préfère juger les gens tey juger quelqu'un dafay fekk nga xam histoire bi nu mu demee de mm. bout en bout mm. mais mënuloo di juger koo xam ne par exemple cette femme là elle est marginalisée elle est jugée je suis sûr que les gens ne savent pas le problème vient d'où exactement parce que elle ne va pas sortir dans la rue aussi et leur dire son problème am na loo xam ne moo ko moom c'est personnel da koy da koy dencal boppam comme di nga gis ay cas yoo xamante ne voilà on peut même pas t'expliquer ben parfois nga gis benn couple boo xamante ne ils étaient super bien ensemble nga xëy dégg bon en fait loolu lañ lay won parce que mm. tey ku nekk da ngay sutural sa bopp nga xëy dégg tas na lan moo ko tas boo xoolee ba fond problème bi ba la. la. plupart du temps c'est un bi grand problème la oui mais fondamental alors bah après cette personne ne viendra jamais t'expliquer ce problème là parce que day suturaal bopam ah nit ñi commencé ko juger. ku nekk naan waaw nanguwul sëy dafa bëggoon fo dafa teg boppam disket da bëggul jur doom parce que dafa yaakaar ne bu juree doom formam day yàqu fekk ne moo la gën a bëgg am doom dafa mënut am doom te du génn ci mbedd bi ne leen mënuma am doom parce que lii ak lii tax ndax day sàmmal boppam sutura sàmmal bopp peut-être borom këram sutura wala yeneen ak yeneen am na fii à ah n'en plus finir moo tax ma ne balaa ñu yegg ci stade boobu noonu ku ci gis loo xam te ne muy jigéen beeg muy góor bi ku ci sentir loo xam dafa anormal ci sa yaram jógal nga dem seeti médecin s'il faut mettre de l'argent là-dessus pour que ñu xool lan moo la dal réellement nga mën a xool lan mooy solution bi pour nga traité wu nga def ko nga nekk ci jàmm mën na dund sa dund tranquillement nit ñi bañ la xamal nga am nga dund sa dund te kenn du la lijjanti kenn du la calculer te kenn dugg sa vie privée parce Sénégal fi nit ah,

sutura bu xaw ma naka gàcce bu gàtt gën gàcce bu gudd. merci beaucoup Tata May